Touba bi ñooñu ñëpp ak gone wilaay yi ñu ngi jottali seen i cant waaye li mu bëggoon waxaat ci kii bi rek mooy Sëñ Abdu bi mu boolee ab du Diouf ak suñ Mbàkke ci teerum gan yooyu. Uh-huh. ab du Diouf da ko wax ni ko def naa la ngay sama conseil Sëñ Mbàkke ni ko lépp lu ma la wax bu ci sama intérêt nekkee lànkal lu ma la wax rek bu ci sama intérêt uh-huh. loolu wàccuwaay bu rëy rëy la. mooy dafa dëggu. Uh-huh. te wóor na ko ni regg na. ndax ci sëñ Tuubaa la nàmpe ba léegi diggam ak bokk yi dafa waxoon sëñ Aliou ko kaas ndox boo ko jëloon def ci posen jox ma ko ma naan ko ndax dama xam ne aw yiw rek nga ma ci yéene boobu confiance nit amu ko ci ay rakam loolu itam mat a bàyyi xel bu baax a baax waaye ci am sutura gi nga xamante ne ni moom la doon dund dafa am benn sëñ daara moo xam ne dama am am tudd ñëw wax ko ko mu dalal ma bañ ñu suba suba la ngénte la ca wi añ reer ba pare mun ma kaay nga yeewiku dem Touba nee daal daal di yëkkati kaamil kaamilu alxuraan jox ma ba pare ni ma diw mii na la yóbbaale oo nee na man sama bopp bi jaxasoo ndax kaamilu alxuraan rek la ma jox ba pare ni ma diw nag diw mii na la yóbbaale mais bu bàyyi woon sama sago sax bala ma àgg sama kër xay na ma lijjanti am tudd ci yoon wi waaye ngénte loo xam ni suba la jox ma kaamilu alxuraan ba pare kii taxaw nga ne ma na la yóbbaale tam wóor man sama buntu kër la may wàcce nee na daanaka reer bi ma doon reer safatuma dara li muy wax déggatuma ko ma dem ñibbi comme sëñ daara la bi mu yeewoo fajar julli ba pare mu ne xaaral ma teel a jàng sama sama waqafi alxuraan ji te dem ca daral ga lijjanti bi am tudd bu ko defee buñ tuddee balaa ñuy jóglu ci waañ yooyu ma dem marché lijjanti fa lu ma kii bu kii ma lijjanti fay bi ma ubbee kaamil bi nii dix mille laa ci gis nee eh, ma defeen dañ ko cee fàtte nee na ma ubbi waat baneen jàng boobu xatu mu jeex ma ubbi baneen daj dix mille ndekete ay dix mille la jël bokk ko ci biir kaamil ba kaamil bi jeex. Eh, jërëjëf Ahmad may may sutura loolu rek ak tabam ah, eh, dégg naa benn waay ah. mos na ñëw itam ne ko dégg naa milliardaire nga. Mhm. mu ne ko man li ma yore moo ëpp ay milliards. ndax ah. milliards am na fu mu xej te man li may li ma yore amul fu mu xej amuloon woon compte banque ndax sëñ la la la la. amul woon compte banque ëpp ay milliards. Euh, jërëjëf amul woon compte banque. amul woon ndax nee na banque. ah ma jërëjëf. du liggéey dimanche. liggéey du guddi. Ah. te soxla mën taxaar dimanche. Ah. mën xaar guddi. te man faj soxla moom